ay <laughs> jo yéen a kaay groupe des médias la tribune la ñu koy euh, dooree tribune dafa ñëw ci euh, li nga xam ne moo di euh, sanction yi waaye it mesure yi nga xam ne nguur gi jëloon na ko jëm ci tere ci transporteur urbain yi interurbain ñu daw li nga xam ne moo di vingt trois heures ba cinq heures du matin dañ leen koy tere léegi daw mu bëccëg lañ woo lañ leen woo waaye nag loole transporteur yi alaa accu lañ si woote ñaani bañ naa lañ si woote bañ ba tëddi suuf lañ si woote moom ak euh, porte bagage yi nga xam ne dañ ko bëggoon dindi looloo tax nag ñu ne fu mu nekk nii laaj ma ñan ñoo sonn ñi sonn mooy voyageurs yi nga xam ne ñoo war a jël seen euh, seen seen bus war a dem ndax nag am na bus bu nga xam ne ni daal a jóge woon ñu ngi ko bloqué woon sa mbuur ne ko doo dugg ndax dañuy tere vingt trois heures ba cinq heures du matin benn bus bu euh, daw jamono jooju ay centaine de véhicules ay oto yu bari yu nga xam ne nii téye nañu leen sa fatoloo Koungheul ndax nee nañu euh, respecté wu leen tere yi nga xam ne tàmbali nañ koo jëfee euh, depuis euh, depuis jeudi donc nag loole ci boppam yéen kaay bi daal na siy dikk def ci ak jàngat bu yaatu jamono joojee ñaar ñi nga xam ne ñoom moom bus ñaari bus yu doon yi mbëkkante woon sa sikilo ba ñeen fukk ak benn ci ay bakken rot si dañ leen tëyendi ndax nag dañu war a layoo jàpp nañu date bi mooy le 18 janvier téye ñu leen pour le moment sa Ziguinchor nag nee nañ soo moytuwul Euh, njëgi paas yi dana yokku dem beex dikk bi ndax nee nañu carburant bi yokk na donc nag ak mesure yi ñu teg seen kaw muy euh, taximaan yeex jakartamaan yi ñoom nee nañu euh, paas yi dañu koy yokk parce que nag lu nu mel ni mënatul continuer noonu nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax marché central au poisson bu Pikine ndox maa nga Pikine Est ndox maa nga fay jaabaa jonge ba léegi yéenekaay bi di tribune daal dina si dikk avis de tempête jamono ji dafa mel ni kon nguuru Sénégal dañoo tooñ wàll yiw wala ñu euh, dugg ci karapitu sàmbalaw bi ndax président Macky Sall boolu jàmbat lu fees dell lañ wax ne moom la enu boolu jàmbat li gën na caa fës bras de fer bi nga xam ne moo dox ci diggante euh, nguur gi maanaam Mansour Faye dem beex dikk bi ax nag euh, transporteurs yi mu nekk nii loole bokk na ci boolu jàmbat li jàmbat li nga xam ne président Macky enu na ko bokk na ci njëgal carburant bi nga xam ne dañu ko yokk transporteurs yi euh, di ko ngurum too fu ne jàmbat yi bokk na si yokkute njëg yi nga xam ne waxoon nañ dañu ko wàññi te ñenn ñu ne subvention bi dañu ko dindi am dindiwuñu ko am ma nga ca ba léegi en loolu yëpp ci ay jàmbat tax na Walf Quotidien daal di sii dikk dikk si euh, ñu andi photo président euh, Macky Sall ayca ah ba tey kon li may wax ni yëpp kon kii wu Walf Quotidien lan la wax nee a habit de tempête. Euh, le titre que je vois pas trop euh, bras fer avec les routiers hausse des prix des hydrocarbures maanaam dañu ko yokk li di njëgum. Euh, hydrocarbure bi njëgum ah, mën nga jëlaatal jëlaatal. ah non wax nañ ko ba pare <laughs> wax ba pare vraiment dégg ndigal xam nga ne ñun moom ñun moom euh, dañuy joxe information bi en temps réel. te nag lu mu laaj dañu koy jox xam nga ni sa luga ziara lañ fa woote fu mu nekk waaw waaw waaw ziara omarienne c'est ça. muy ziara omarienne c'est ça waaw. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax sa sa ana Galaye euh, euh, Chimère ñu laaj ko ndax euh, ndekki ba pare Galaye Sylla. en direct là. avec TVU. TVU la wala téléphone la Galaye ah y' a toute une équipe là sur place. ah kon nag TV la. waaw ñoom ñoom Formose ñu ngi foofu ñoom El Hadj ñoom Mbaye Seck ñoom ñëpp ñu ngi foofu. di leen wax nag ziara annuelle la tey sax mu nekk suñu élément bu njëkk li nga xam ne mooy doomu xalif bi wala sët bi. ñoom day xadi ci am taal ñu wax day xadi ci am taal certainement ma nga fa. Euh, donc euh, équipe bu mat sëkk la ñu yóbbu te da ngeen ko am en direct ci euh, Sen TV mu ngook. Euh, la en attendant heure bu jàppandee rek jox ñu ko euh, chimère ah ak Naïm Vox Populi dafa ñëw ci kàddu yi nga xam ne Ami Ndiaye ñii bi daal na siy dikkaat moom mi nga xam ne mooy député bu ñu dóoroon agressé ko sa assemblée nationale ñaar ñi ko agressé ñu ngi leen téye ba léegi ay c'est bon ay ca Ami Ndiaye ñii bi moom ci boppam nee na la mu waxoon teggiw ci yota teggiw ci virgule regretté wul dara tey la wàllu gën a ay bu doon tey mu dellu wàcce li ko waral nee na ñu jël ko ay li li waral dellu ci yotaa moo di arène politique la ñu ne arène politique dafa laaj fair play ku bañ ku la xas wala ku defanteex yow bu dugg ci arène politique bi da politique gu Sénégal loolu mooy réalité bi benn ñaar nee na andi kan moo mën a indi wax ay preuve ne moom ci boppam diw la tudd nee na amul benn tur bu mu tudd ci mbir yi tuddul benn yoon kenn ku nga xam ne nii euh, euh, euh, moo tax ñu daal ci kawam amul nee na amul kenn ku mën a preuve ku andi preuve diw nga tudd rek mu tekki ndombal tànkam génn assemblée nationale benn ñaar nee na nag moom président Macky mooy leader am président Macky Sall mooy leader am te dafa neex a faral moom mooy wax ba tey te nee nag ku dal ci kaw leader mu dal sa kaw dëkkab dóore la fa yoo koy tas mbéjum boroom la kanam euh, boroom a koy euh, fejal boppam nee na ku dal ci leader am ci boppam mu dal sa leader kon nag ku bañ ñu dal sa leader yow génnal ci arène politique bi ndax fair play la laaj moom moo ko xam xamle jëm nag ci président Macky bu fekkee am njaay ñii bi dafa woote defante moom kii di Mansour Faye goro national nee na ko fu mu nekk nii ñun wax ji sax bariwul tuuti wax jëf lu bari ndax nag ñun amuñu plan A B C ba Z ay X lu mu ci manti doon benn plan la ñu am muy benn candidat la ñu am te candidat boobee Salla Ngaari lam toorool tudd moo di président Macky Sall moom ci boppam mu neex ko mu naqati ko bu yeboo mu xam ne mooy suñu candidat donc da ci bàyyi xel euh, loolu la euh, euh, Mansour Faye wax ci yéenekaay bi dellu ginnaaw nag loolu la observateur wax ndax euh, nguur gi defante bi nga xam ne sumb na ko transporteur yi da cee mujj dellu ginnaaw ci l'observateur ndax nee na gouvernement bi fu mu nekk nii euh, euh, maanaam desserré na mbir yi donc fu mu nekk nii nañ ci bàyyi xel reculade la gouvernement bi def ci coow lu ni mel président Macky Sall bu fekkee Mansour Faye nee na mooy seen candidat moom nee na fu mu nekk li mu woote mooy joxoon mooy joxe loxo booloo ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax nee na wax jee fi nekk nii rek. waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu séqal arène politique bu ñoo gën a xam ne bu dee majorité bu dee doole ju bari bu dee mbooloo ñoom waa benn bokk yaakaar ñoo ko ñoo ko yor donc tuuti wax jëf lu bari jëf li nag moo di booloo leen joxante loxo 2024 la ñu jëm ndax foofu ñu jëm dafa laaj renfort donc nag te biee boobu leer na benn bokk yaakaar day am candidat mais moom waxul moom la wala du moom ayca gàllaay si la gàllaay nii aywa gàllaay yaa jël gàllaay gàllaay allo ma mbay waaw Galaye Sylla. Euh, Yacine Seck maa baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax Galaye na nga def naka luga Galaye bu dee yaa ngi may dégg. allo Yacine. waaw fi ne yéen ngi ci ziara annuelle de. waaw maa ngi lay dégg bu baax euh, Yacine Seck Mame Mbaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax. Euh, di ziar tam ñëpp ñoo xamante ne si na ñu ngi fii tey ci Louga ci kër mun Basir Mountaga Dahatal muy la famille omarienne. Euh, tey nag li fi am umpul kenn daanaka fu nekk nit mi ngi fay jege si àdduna bi di ñëw fi nga xamante ne si mooy Louga muy donc cinquante neuvième édition euh, ziara omarienne euh, ren nag ginnaaw ñaari at yoo xamante ne si ne amul ndax Covid 19. ni ngeen ko gisee nag ni nit ñi daanaka sax bu du sax force de l'ordre yi fii nii kenn du fi xaj ndax daanaka sax problème mu. embouteillage dafa am ci biir dëkk bi boo génnoon tuuti en ville euh, fii nag ñu nekk euh, net muy juste euh, buntu kër résident buntu résident Omarienne bi gis ngeen ni mu demee foo sànni mbaatu mu tàkk léegi ne lu ñuy xalaat tuuti nag fekk ay 11h midi mooy la visite du président de la république Macky Sall mu war a ñëw moom tamit def ziaram comme ni mu ko baaxoo at mu ne. may fàttali rek ne démb ci ngoon def nañ xajara ginnaaw nag bi sëñ bi recevoir ñi nga xamante ne si ne ñoom ñooy ay. ay famille ñu bare bare bare ak ay tamit ay kuréelu politique yoo xam ne yu bari dañoo ñëwoon euh, ñoom tam ngir ànd ak euh, ki nga xam mooy xalifa bi ci bis bu sell bi le euh, may fàttali rek ne ginnaaw xataratul jumaa bi tamit def nañ benn cérémonie boo xamante ne si daal ba ay ay waxante ci gën a xam ne nit ñi kan mooy Thierno mun Daha Tall may fàttali rek ne moom bi mu làqoo rakkam Thierno Seydou Nourou Tall daf ko dencoon foofu nga xamante moom moo di ndakaaru ci euh, cimetière yi nekk Médina muy benn abattoir donc ginnaaw loolu nag euh, vingt huit ans après bi nga xamante ne ci la Thierno Seydou nelawee ci la feeñu kon euh, sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh ne ko nag booba mi fekk sax Dabakh nekk xalif général des tiijan mu ne ko na ma bëgg na ngeen suli ma yóbbu ma Louga ginnaaw nag ay gént yu bare bare bari ci la xalifa bi fexe bu gënteeg le président de la république Abdou Diouf à l'époque ci la waxaay waxte tamit ak njaboot gi Euh, ci lañ ko suli nag indiwaat ko fii mu ko nag benn bis boo xamante ne si ne dafa commencé woon taw ci Ndakaaru bi ñu xëyee ba ci euh, ngoon gi fii xam na bi ñu ñëwee Louga koor bi dara si ko ci dañ ko jël euh, sangaat ko sangaat ko imaam raatibu Louga à l'époque muy El Hadj Mujib Diop moom moo defoon sax euh, moo ko waat fii ci kanamu mbooloo mu takku ci kanamu kilifa diina yu takko takku démb nag ci cérémonie boobu dikkaat nañ bu baax a baax a baax ci euh, yooyu nga xamante ne si ne euh, moom moo jot am fi nga xam si moom mooy diwaanu Louga tey nag pour camper décor bi tuuti rek ci kanam tuuti ginnaaw ñëw président de la République ak déclaration yi fi war a jib ñu ngi xaarandi tamit à 17 heures wala boog 19 heures Euh, benn conférence bu mag boo xamante ne si ne day amee euh, fi nga xam moom mooy euh, Manar Al Huda di nag béréb boo xam ne xam naa ñoom Oustaz Ndiaga dañ ko miin bu baax a baax daanaka bëri na ku jàng arab wala ku làkk arab ci biir réewum Sénégal foofu nga dalee te foofu nga amee tamit bagu arab bi nga xamante ne si ne fu nekk ci àdduna fu nekk ci Afrique nit ñi dañuy ñëw foofu pour am ko ngir mën a génn jàngi à l'étranger kon mu nekk bërëb boo xam ne bërëb béréb la bu sensible boo xamante ne si ne ñiy jàng arab miin nañ ko bu baax a baax te rek Thierno Seck dafa war a dem def fa tamit conférence bu mag a mag boo xamante ne si ne mbooleem euh, daayira yi nga xam dañu aju ci kuru Cheikh Omar muy benn organisation boo xam moom moo ko jiite ñoom euh, danañ ko amal foofu ci euh, Manar Al Houda ginnaaw loolu nag ñuy xaar tamit ki nga xam moom mooy ministre de l' intérieur Félix Antoine Diome moom tam war a ñëw ci cérémonie officielle bi nga xamante ne si ne at mu ne bëgg ma dugg ci lu ma lu ma minul trop at mu ne ki nga xam ne si mooy xalif général des Tidianes daf ko doon teewe moo xam ci euh, jamonoy euh, al amin moo xam ba ci euh, ki nga xam moom mooy sëñ Babacar Sy Mansour ci édition yu mujj yëpp gis nañ ko mu toog ci biir tente bi moom ak xal général de la famille omarienne Thierno Basir taal ñuy waxtaan ak njaboot gi di tampe xol yi di def li nga xamante ne si ne moom mooy waru garu kilifa ci ci ñi mu yilifa fi mu nekk ni nag ginaar loolu ay jàng lay doon nga ñu mel ay duudu kenn ñu bëree bëree bëri ak ay jàngkat yoo xam si dañuy jógee ay Mali ay ay un peu la sous-région ñoom tam dañuy ñëw euh, ngir man a gunge nit ñi ci loolu nga xamante ne si ne moom mooy moom mooy ziyaara bi mais fàttali rek na depuis dem ba léegi nag euh, am na ay kuréel yoo xamante ne ñoom dañ leen teg rien que rek pour ñoom ñuy wàcce alxuraan téere bu jàll rek ñoom dañuy xëcc beneen kon fii fi mu nii mënuma laa wax ñaata ñaata ñaata euh, ñaata téere moom la ñu wàccee daanaka sax kay compté day toog ne la rek bu paree rek mu ne na teg ne la ñu la jëlaat ñu daal di commencé waat di di di jàngaat li nga xam moom mooy alxuraan bi euh, Yacine ak Mame Mbaye euh, bu fekkee amu leen question d'une manière générale daal lii moo war a xew ci dëkk bi tey euh, di jamono mbirum politique tamit mbirum politique tamit dañ dafay xejj bu baax a baax ndax ñaari at yi ci ginnaaw la xalif jël ay mesures ne leen bu kër gi bu fi kenn politique léegi nag loolu moo tax sax euh, tey ñi nga xam ñoom ñooy waa kër Moustapha ñi nga xam ñooy waa kër Mamadou Diallo waa kër Mbéri Sylla Omar Bon Khattab Sylla ñi nga xamante si ay politiciens lañu ñoom dañ def seen accueil dinañ accueillir le président de la République mais c'est juste à l'entrée de la ville foofu lañ koy amalee xamante ne foofu tey boo yaa ngi gis ay pancarte yu yu ñu takk ñu ngi teg euh, seen i rajo def foofu seen sono yoo xamante ne ci la ñuy accueillir le président de la république Macky Sall euh, loolu nag li moo jot a am fii euh, ci Louga Mame Mbaye yow ak Yacine Seck bu dee yéen nga may déglu kon may fàttali ne Galaye la woon ak ak El Hadj fii ci devant donc la la résidence omarienne ci Louga pour pour la Sen TV et la et la rajo Zik FM. merci beaucoup Galaye Sylla dinañ dellu si waat ak yow xam naa du yàgg léegi ci kanam. donc en direct lay doon bu soobee yàlla pour euh, journée de la cinquante neuvième édition de la ziara annuelle euh, donc de Thierno Mountaga Daha Tall euh, fële ca Louga suñu donc équipe mi ngi fa à savoir Galaye Sylla mi ngeen doon déglu léegi nii. ñoom El Hadj ñoom Formose ak ñoom euh, ki nga xam ne moo di mbay sekk si kanam léegi nii incha allah dinañ leen am en direct sur euh, Sen TV ak euh, Zik FM ay Mame Mbaye daa mel da nga écouter sa revue de titres yi. waaw dañu koy dañu koy dañu koy yemale fii ah, soo soobu ci li nga xam ne moo di jotaayu xibaar bi ndax temps bi daf ñoo xoj. te euh, gàmm googee ziara boobe fa ñu dund ko en direct euh, ci Zik FM ak euh, Sen TV waaye li gën a fës si xibaar yi kon Yacine Manes nañu ko door ak mbiri ña nga xam ne ñoo moomoon bus yi ci l' accident ba am sa six kilos jàppale ne foofee sa Kaffrine dañ leen téye di jamono ji ndax nag dañu war a jàkkaarloo àttekat bi démb jot nañ leen déglu seen audition bi ak procureur fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier moom la ñu fëskee ne dem sa tribunal bu grande instance bu Kaolack ngir leen su loolu weesoo it jàppale ne Euh, directeur bu l'hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay andi na ay leeral ci panne scanner bu l'hôpital ba moom Moussa Sam Daaf la xam le moo di ay défaillance moo amoon ci circuit électrique bi te loolee moo yàq li nga xam ne moo di appareil ba coronavirus dikkaat ñeent fukk ak juróom ci ay cas yu grave la ñu wàññ ak tiitaange tàmbalee am jàppale na it directeur bu établissement de santé moom docteur Ousmane Dia mu ngay dalal xel yi nee na wàllum euh, li nga xam ne moo di lal yi mat na ñetti téeméer fukk benn ci ay lal am nañu ko ay lal yu nga xam ne nii moom la ñu jagleel ñi soxla oxygène euh, ngir nag